mu ànd ak benn huissier ak camarade de parti am bile di Abass Fall mandataire Ousmane Sonko mi nga xam ne candidat la à la candidature ci joŋante présidentielle atum 2024 dafay ñibbi ak loxo neen ndax nag mujjul gis njiitu Sénat ngir mu laaj ko fiche de parrainage yu Ousmane Sonko. suba lañu ñëwaat topp ko ba fu mu mën a yem euh, incha allah lu kot électoral wax mooy Sénat jël fiche de parrainage yi jox ñu ko pour en tout cas pour le candidat Ousmane Sonko. gannaaw bu direction générale des élections bañee ne du ko jox document yu mu soxla ngir def collecte de parrainage am maire bu Ziguinchor mi nga xam ne ma nga ca kaso ba léegi ci Sénat la am yaakaar ci lu yàggul dara kuréel bi jotoon na déggal ndogal gu bawoo ci tribunal bu grande instance bu Ziguinchor dem sax bay sàkku ci direction générale des élections mu dugalaat ko ci liste électorale ya waaye nag décret njiitu réew mi fës si aljuma gi ñu weesu ku moywul day tax mbir mi gën a dëgër membre yu fi nekkoon yëpp wàccee nañ la indiwaat ay membre yu bees te si membre yu bees yooyu gis nañ ci ñoo xam ne APR nañu bokk wala euh, en tout cas bennoo bokk yaakaar la ñuy kii. responsable yu parti Pastef ba woon nga xam ne jamono ji ñu ngi xeex ci wàllum justice bi ngir seen leader bi ñu mën koo dugalaat ci liste électorale ya nee nañu dinañu wàcc itam. ci terrain ba ci noonee la ñu xamle ne jamono ji ñu ngi waajal taxawal ab kuréel guy boot opposition yépp ngir ñu taxaw xeex ngir ñu respecté ndogal gu baw ci àttekat bu tribunal bu grande instance bu Ziguinchor